jërë ngeen jëf mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 ñoo ngi leen di euh, nuyu di leen di jëfal euh, yéen sunu mbokk auditeurs yi mbokk yi Abdou Khadre Seck moo nekk ci kàddu gi moom du Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi euh, tey nag ñu dellu am mbégte daal di dalal docteur Abdoul Aziz Mbodj. Euh, moom nag mu mbokk ci parti bi nga xam ne mooy parti républicain pour le progrès euh, parti bi nag euh, bu ñu ko waxee di ngeen xam ne parti la boo xamante ni bu ñu dog di samp la parti républicain pour le progrès moom membre la ci ci membre fondateur yi ci la bokk xam ngeen ne dimanche bi ñu passé moo nekk ñoom bi ñuy bi ñuy ngénte seen parti bi waaye ki ñu invité tamit di docteur Abdoul Aziz mbooj moom constitutionnaliste la jàngalekat la ci lu jëm ci wàll woowu docteur Abdoul Aziz Mbodj ñoo ngi lay nuyoo maa ngi lay fay Abdou Khadre di nuyu euh, auditeurs réew mi FM yëpp euh, sénégalais yi ak sénégalaises yi nga xamante ni ñii ñu ngi ñuy déglu jërëjëf. Euh, jërëjëf docteur Abdoul Aziz Mbodj danañu daal di ñëw ci seen parti bu yees boobu nga xamante ni tey mën nañoo wax ne kii Déthié Fall moom moo ko moo ko daal di moo ko daal di taxawal. Euh, li ñuy euh, commencé docteur Abdou Aziz mooy ci euh, actualité bi fan yi ñu génn sax jël nañ la fi benn extrait ci Rewmi FM lu jëm ci wàllum euh, ethnicisme ñoo ngi koy waxtaanee boo doxante lu jëm ci wàllum xeet ak di si xasante euh, loolu yow en tant que koo xamante ni tey way politique nga euh, lan moo ci sa xalaat d'abord. jërëjëf waaw xam nga xam nga débat boobu c'est vrai que débat bu mineur la mais baaxul. mais aussi man même bu ma sañoon tey. débat mineur mooy. moom moo maanaam amul solo parce que benn waay kese moo ci bind du loo xamante ni maanaam lu lu lu lu lu law ci réew mi la du loo xamante ni waa réew mi dañ koy dund parce que réew mi dafa am dafa am nu ñu ko tabaxee dafa am nu ñu ko tabaxee am nu muy dundee maanaam ci service public ca l'école ca armée ci devant l'emploi des emplois publics le principe d'égalité lañ ñuy lañ ñuy lañ lañ ñuy traité te mu nekk lu ama am solo ñu am xeetu jaxasoo boo nga xamante ni ci du point de vue socio culturel mu am ci nekk suñu cosaan ñun amuñu barrière ak barrière xeet amuñu barrière lakk dañoo jaxasoo ñun askanu Sénégal te nekk jàmmoo ak surtout ak cousinage à plaisanterie donc ñi nga xamante ni ñu ngi soulever loolu wala ñi nga xam ne ñu ngi dundee loolu seen intérêt bopp moom moo koy moo moo koy def soit dañoo bëgg a conserver soit ay parcelles de pouvoir wala seen i intérêt bopp wala souvent ñu ay yoo xam ne dañoo bëgg a bi kenn waru leen topp man bu ma sañoon débat boobu sax maanaam ñun politique ñun waa presse ñun ñëpp ñu bañ leen faale. waaw donc parce que li ma jàpp mooy que képp koo xam ne ci ñun maanaam dérapé nga bu indi wax yu mel noonu nga xamante ne ni mun na troubler ordre public mun na jaxase réew mi procureur justice moo war a agir. parce que xam ne kii ku Sankara la ci ñun dañ ko war a seppi ci ñun loolu man loolu laa loolu laa gëm réew mi kenn waru ko jaxasee ci yenn yenn discours yi réew mi kenn waru ko jaxas ci yenn pratiques yi je pense que c'est extrêmement important ñun man amuñu ñun amuñu problème mu joolaa baa nga ne amuñu problème mu tukulóor baa nga ne amuñu problème mu nisba donc kii nii la sant ak ah, wala kii diine bii la bokk loolu yàlla def na ba jàmm lañ ci am on a partout des voisins des amis ay chrétiens des amis joola réew mi loolu lu fi ratax la. d'accord mais mais mais euh, docteur Abdoul Aziz Mbodj euh, ñun euh, maanaam mën nañoo wax ne tollaguñ si xasante ci boot di nit ci wàllum xeet comme yeneen réew yi nga xamante ni sax am na ay ger civile yu sam mais fii ci Sénégal mën nañoo wax ne lii raam sa ñag ba la jëm ndax fii ñun yàgg nañu fee dégg ñu ne ñii wàllum euh, nedd ko bandum même Macky Sall dañ ko koy faral di tuumaal léeg-léeg da fi dégg ñu ne kii candidat Mouride yi la ñu ne kii candidat euh, Tijaan yi la ñu ne kii euh, même surtout Ousmane Sonko mel lu mel noonu dañuy gis ne opposition bi dañ koy tuumaal Macky Sall léeg-léeg ñu bokk ci pouvoir bi dañ koy tuumaal ñenn ñu bokk ci opposition bi loolu moom euh, ñoo ngi koy waxtaanee ñoo ngi koy nemmeeku aussi docteur. waaw mais ëpp na dem ci ñag ba ñag ba moom ëpp na fa jëm n'est-ce pas je que lépp lu nga xamante ni en tout cas tourné na autour de ça dañ ko war a stoppé suñu constitution daf ñu ne. benn parti politique ci article 4 benn parti politique amul droit woote woo région woote woo diine uh-huh. woote woo xeet donc parti politique boo xam ne discours bi noonu la demee ah. donc dañ ko war a daaneel parce que parti boobu méngoodul ak charte réew mi maanaam amoo droit nga woote woo ab région ne man parti Saalum la comme man ni ma dëkkee Saalum amoo hmm. droit boobu hmm. amoo droit ma parti tiijan la wala parti taalibe Baay la loolu amul ne sa wala parti murit la loolu réew mi dañ ko as ca charte réew mi koy tere. Ah, mais mais docteur mais docteur yow. beneen bi dama ne képp koo xam yaa ngi ci. Mhm. dañu war a dañ la war a daane daane sa parti. Mhm. parce que yow tegatoo sa tànk fi nga xamante ne kii te man nag gisuma nag ci parti politique yi fi ne nii parti yoo xamante ne nii dañ koy woote woo. Mhm. loolu gisuma gisuma gisuma gisuma gisuma ko dëgg dëgg dëgg. d'accord mais docteur. Euh, beneen bi mooy que dans la pra dans la gestion de l'État. maanaam wax naa léegi ni principe d'égalité moo ñu lënk moo tax ba ngay dem ba suñu haute administration suñu armée fu gën a kawe nga gis fa sant boo xam ne da nga koy laaj ndax yow ndax sénégalais ga dëgg dëgg sénégalais parce que benn lenn moom moo ñu gouverner ñun ñëpp mooy principe d'égalité même bu nekkee dafa naturalisé bu ma dàqee jàng ñu def concours dañ koy recruter moom moom moo tax léeg-léeg nga gis ko xam ne du nekk sant Mbodj xëy na du sant Seck am na ay sant yu ñu miin la Sénégal mën na nekk ay centre yoo xamante ne ay minorité la ñu nekk mais dara terewu ko parce que centre boobu terewu ko mu mën a nekk ba nekk général d'armée am na fi terewu ko ba mu mën a nekk gouverneur terewu ko ba mu mën a nekk magistrat loolu mooy principe d'égalité ci affaire boobu noonu principe boobu buñ ko bafoué moom musiba ñëw buñ jour buñ ko bafoué nga xamante ne yémaleetuñ nit ñi parce que yémale bi mooy que traitement égalitaire bu ñu waree jongante dañuy jongante ci suñu xam ñu évaluer ñu ku war a jox ñu jox la wala yemale nit ñi ci seen dëkkuwaay yemale loolu loolu nag njiitu réew mi ak ay jawrinam ñoom la war a taxawee noonu. d'accord boo boo parce que Sénégal gi maanaam zéro ko zéro baaje comme ay yeneen dëkk yi boo demee bu ñu lay woo comme par exemple man bu ma ñëwoon te ma nekk séeréer buñ bu ma ñëwee. Mhm. sama sant sama tur sax duñ ko wax booy séeréer la ñuy wax tellement que c'est accentué la l'appartenance. Mhm. loolu nag yàlla dimbale na ci. léegi nag ñun ñi nga xam ne ñun ñoo fi ne mooy ki jiite réew mi ba ci ñun acteur politique yi fi ne. bu nekkee sagan nañ ba lu façon discours yooyu am fi bu am fu mu yëgg suñu réew donc ñun dinañ am gàcce ci suñuy sët ak suñuy doom parce que loolu mosu fi am réew mu am dum dund ans mu am yooyu nga xam ne mu ngi am ci yeneen réew yi ci Afrique yi ñu ngay ay centre Afrique ñu ngay xeex diggante chrétien ak julit boo demee ay Rwanda loolu yëpp am na ci réew loolu ñu mucc ci depuis 60 ans yaakaar na ñun bu nekkee euh, irresponsabilité totale lay nekk par rapport à à l'histoire n'est-ce pas manqué manqué bu rëy bu nekkee ñëw ñun mu doo nañ réew mi donc doucement mu yegg foofu ci discours je pense qu'il faut que les gens parce que c'est pas parce que damay conquérir pouvoir wala damay xeex pour conserver pouvoir que damay utiliser tous les moyens même illicites loolu baaxul dafa xaram te sénégalais dañ ubbi seen bët xool ñi nga xamante ñu ngi am yéen a xeetu discours yi justement alors donc ñu sanctionné leen yi war bu élection jotee loolu il faut que sénégalais xam parce que jàmm nag jàmm nag lépp lu ñu mu tomb suñu liberté d'expression lépp lu ñuy xëccoo ci jàmm rek la mën a ne. d'accord voilà. waaw mais docteur euh, Abdoul Aziz Mbodj sànq yaa ngi wax euh, sunu constitution li nga xam ne moom la ko teree parti politique yi euh, ndax tey par exemple tey comme ni nga ko waxee noonu ndax am na ñoo xamante ni tey foo dem ci Sénégal rek askan wi dafa dafa jaxasoo mais fan yi ñu génn dafa am benn journaliste boo xamante ni bu tudd Madiambal Diagne daf ci def benn chronique am ñoo xam ne dañoo jóg porter ko plainte correct ak ci ak ci justice ndax jàpp nga ne euh, su loi réew tëggee na ko noo xam ne boo boddee nit ci ci xeet euh, xas leen yoon mën na dal sa kaw. absolument euh, la constitution Sénégal discrimination da koy bag da koy bañ nee naa la comme ni waxee affaire parti noonu la bañee discrimination li turu discours boobu trouble à l'ordre la man bu ma yëgoon ñu doon signé. Hmm. pour dem justice man dama doon signé. Hmm. parce que man ba ma ko njëkkee yëg dama ne procureur dafa war a auto saisir procureur nag. Hmm. nekk fu pour ñun la fi nekkal dalu réew mi kaaraange réew mi moom moom ci loxoom la nekk il faut que bu amee benn xeetu discours boo xamante ni méngoowul wala mën na troubler ordre public mu agir c'est extrêmement important man bu ma fekkoon ñi signé dama maa ngi leen di encourager justement avocats yi nga xamante ne c'est des républicains progressistes comme ñun nañ jóg jàpp ci xeex boobu parce que Sénégal mënuñ fi seet benn waay mu jël discours bu nga xamante ay bodante xeet lay wax man discours liir naa texam bi c'est extrêmement dangereux liir naa ko mais c'est un cas isolé il faut il faut que procureur agir wala ñu porter ko plainte c'est être parce que euh, loolu c'est pas normal mun na taal réew évidemment d'accord euh, jërëjëf euh, docteur Abdoul Aziz Mbodj yow nga nekk membre ci parti républicain pour le progrès ñu daal di wax nag ci li nga xamante ni tey moom mooy élection locale yi bala ñu ñëw sax si ci élection locale yi dama bëgg ñu wax ci discours bi président Macky Sall war a def tey discours bi muy def tey euh, comme li nga xamante ni moom la ñu ko baaxoo bu ñuy wàcc suñu fête de l'indépendance 4 avril discours boobu yow lan ngay xaar ci discours bi. boo xam nga fête nationale moom daan maggal suñu indépendance la lu am am solo la déjà dañu maggal suñu indépendance xam nga réew bi nga xam ne dañuy dem ba ne am na 61 ans yaakaar naa. Mm-hmm. loolu am na solo. dëgg-dëgg mm-hmm. bu nekkee ci jéego dundu aad dundu doomu aadama donc nekk na nag romb na sax mu kalaf day fara nekk sax ci ci ci ci ci les sages. donc état du Sénégal jamono ji ci état yu sage la war a bokk état yi nga xamante ni war nañ mën a mën seen bopp war nañ mën a moom seen bopp war nañ mën a justement alors donc mën a euh, en tout cas autosuffisant ci yu bëree bëree bëree bëree discours bi nag xam nga tey ni surtout discours bi la ñaara koy tënk xam naa ne ay coronavirus sag ak li fi xew mhm. bon euh, l'emploi des jeunes donc non ak emploi des jeunes do mais ay maanaam jé dina jéem a layal ay échec yu bëri yi nga xamante ni mu ngi am ci politique yooyu naturellement voilà mais. Euh, jàpp nga ne am njëriñ. waaw mais non xam nga discours cosaan la n'est-ce pas mais discours discours moom amul benn discours bi kese amul benn njëriñ moo xam ne mun na mais nag mun na ci profité woon dalal dalal askan bi. parce que gis nga mbir événement yu mel nii bu amee événement yi fi am fii xam nga le 2 le 2 mars xaw mooy événement yi jaxase woon réew mi nii nii. ok événement yooyu bu amee ci ab réew. président de la République day war a jël hauteur justement a ah, donc woowaat nit ñi pour nit ñi dajal dajaloo woowaat nit pour nit ñi waxtaan ñu évaluer loolu parce que événement yooyu bu ñëwee tey ci benn benn benn benn conséquence ma xam ne nag Sénégal moom moom moom moom yoon bi mu jël moom bon na parce que ah. bon buñ toogee boo maanaam au cœur de ce problème dafa am assemblée nationale da ci nekk au cœur de ce nekk au cœur de ce problème là ay ay complot d'état bu nekkee loolu yëpp ci ay conséquences ma xam ne nag moom te moom nag moo ci war a tiré conséquence nga xamante ne ni peuple ñu ëpp ci peuple bi ñu ngi janoog moom donc ne ko ne ko lii lañ bëgg. mais waxoon am na ñu doon wax ne sax na démissionné. mais waxoon na ci. non mais li mu ci wax dara doy ci lim liñ bëgg mooy que mu wax ñu moom ne comme lii li waa UMS wax. nga xam ne la question de l' indépendance de la justice da see posé wu. UMS dem tëju def benn déclaration def ay propositions yu am solo. yoo xamante ni pour réformer. pour refonder l' institution judiciaire xaar ci discours bi yow. en tant que constitutionnaliste. non non man li ma li ma bëgg mu def mooy mu évaluer objectivité les événements yi par pas évaluation politique bu ko évaluer objectivement dina xam ne war nañ réformer suñu assemblée nationale. dana xam ne war nañ réformer suñu institution judiciaire ba nga xamante ni maanaam kenn mënatul sénégalais yi kenn buy dem justice doo xelaat ne fii nii nii nag. am na ay ndëgg sarax wala mun na am ay ndëgg sarax bu ma demee du ma ñëw beneen bi mooy que am na ñu nga xamante ni mu ngi ci mooy li may wax abattoir électoral bi mu def nga ne 2018 la ko def mooy article 57 code électoral parce que fa la bëggoon yóbbu Ousmane Sonko fa la yóbbuwoon Karim Wade fa la yóbbuwoon Khalifa Sall loolu nañ ko dindi maanaam yi nga xamante ay loi scélérate lañ yoo xamante ni moom moo tax maanaam démocratie Sénégal moom mu sañ naan parce que bu la naan day tànn ay adversaire am déet nan la koy defee dafa am yu yu yu fi ne article 31 bu ñu la tëjee même même ci yenn yenn yenn yenn infraction yi sursis rek un mois dañ la naan dootoo nekk électeur te ñu la boo nekkatul électeur na doo nekk candidat loolu article 57 la yooyu na ko dindi na dalal xel yi par rapport justement au dossier de de Karim Wade ak Khalifa Sall na leen rétablir yooyu mooy yi nga xamante ne dañ koy xaar beneen bi mooy que mbiru emploi des jeunes moom xam nga li nga xamante ne def nga ko 9 ans pouvoir neuf ans boo ko defee au pouvoir maanaam mbiru emploi moom euh, lekk xaalis la gën a def que indi solution. loolu tax ah dé ba ñaata institution lañ fi def ci réew mi. mais gisoon nañ dafa si jéego. fii ni Sénégal fii wëral ci mbedd mi nga xool non la la la politique de l'emploi dafa échoué totalement partout partout on a créé énormément d'institutions ça nous coûte cher d'ailleurs daf ñuy dafa cher. parce que politique emploi dafay structurant lu politique bu moo du structurante la mën a nekk du la loo xamante ni da ñëw xëy benn gafaaka génne benn trois cent cinquante milliards ne non pour la pour pour l' emploi pour financer les jeunes koy koy financer ban secteur ngay financer n' est ce pas c'est-à-dire que y a des choix pour parce que des fois nga dégg ñu naan non état du joxe emploi mais état mooy joxe emploi moom mooy créer l' moom mooy yore taxes moom mooy yor institution financière yi moom moo yombal peut-être même bu nekkee ni ñoo soxla suuf dañoo soxla courant dañoo soxla loolu loolu état moom moo ko yombal am na ay këru liggéeyukaay yooyu ñu xam ne ñu ngi fi ñoo xamante ni xëy na bu ñu leen dooleeloon dinañ mën a jouer dara ci ci emploi ak ñoo xam ne ñu ngi góorgóorlu déjà ñoom ñu ngi ci dara nga xamante ni dañu am problème mu capital mënuñu am accès au crédit ñooñu mën nañ leen dimbale def ay incubateur accompagner leen mais da ngay xëy sa financement finalement même accès bi accès politique lay gën a nekk donc éternel recommencement y' a énormément d' institutions yoo xamante boo ca dem agence boo ca dem la ci emploi luy see ut seeni i oto ak seen lépp ak luy seeni i bâtiment daanaka lim ñuy coûter kenn xamul nu mu toll te résultat bi moom justement alors donc mën nañ di ko wër fii ak ay weer duñ ko gis. d' accord euh, docteur Abdoul Aziz Mbodj yow su ma déggee sax mooy ci discours bi nga xam ne président Macky Sall war na koo def tey war na fexe. Euh, nit ñi amaat confiance wala ñeen ñi amaat confiance ci li nga xam ne mooy seen justice su réew ndax euh, ay la yëwan am na ñoo xamante ni amatuñu confiance ci justice bi beneen bi tamit ci discours bi jàpp nga ne war na mën a joxaat ndaw ñi espoir ndax Sénégal bëri na ndaw yoo xamante ni euh, amatuñu yaakaar ne mën na seen ëllëg mën naa ñoŋ ci ci réew mi te euh, Sénégal réew la moo xamante ni ñi si ëpp ay ndaw lañ kon daal ñaari point yooyu jàpp nga ne lu lu munta ñàkk la président Macky Sall dellu si si tey ci discours bi. loolu normalement en tout cas bu nekkee discours bu normal ci loolu moom da cee war a dellu si taxaw ci dalal ci xel yi. waaw mais si xel rek kese dalal xel kese. ah déedéet xam nga bu ne man dinaa def lii dinaa jël mesure jël ay mesures fermes. ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne maanaam te bu ne j'engage une réforme de l'institution judiciaire à partir de tel jour cest que fii nii bi ñu def ay yeneen réformes yi Abdou Diouf bi ñuy def réforme réforme concertation 91 discours à la nation la ko annoncé bi ñuy def euh, réforme de la régionalisation bu 96 discours à la nation la ko annoncé n'est-ce pas je pense que à la dans à partir de ce discours la mun na teg tànkam fu nga xamante ni objectivement en vérité citoyens sénégalais yi surtout les acteurs politiques la société civile danañ si retrouver wu pour justement donc ak pousse euh, donc euh, la l'appareil judiciaire mu dem fi nga xamante ni dinañ yaakaar ne dina méngoog justement li Sénégal yi di xaar. d'accord léegi euh, docteur Abdou Aziz Mbodj il faut tamit ñu wax tuuti ci ki nga xamante ni tey moom mooy président ndax réew mi dafa bëri ay ndaw ñoo xamante ni tey dafa am yu bëri même ñenn ñi bu dee amuñu confiance ci justice bi ñenn ñi amatuñu espoir ci seen réew. mais tamit dafa bëri ay nit ñoo xam ne maanaam kàddu makki sàll kàddu njiitu réew mi dafa dem ba nga xamante ni maanaam doyatu leen su waxee ñu baree bare dañuy jàpp ne wax la joo xamante ni maanaam du mujj fenn te loolu mu nekk loo xamante ni tey crise de confiance bu garaaw a garaaw la yow loolu euh, en tant que citoyen sénégalais ban njàngat ngay def ci loolu. waaw xam nga loolu aussi maanaam lu lu lu doy waar la waaw boo ñu demee ba suñu réew bu ñu ne président wax na. nit ñi nit ñi nit ñi di ci sikki sàkka ça veut que non réew mi réew mi mu ngi sës na ci mur bi loolu lu lu lu doy waar la te loolu lépp lay wax ne dañoo war a restaurer en vérité donc en tout cas euh, l'institution les institutions de l'État mooy mm-hmm. institution présidentielle institution législative ak institution judiciaire nga xamante ni saa yu ñu waxee ñun ñëpp nañ ci tënku parce que dañ xam ne lii du varier wala même bu varier dañ xam ne am na justification mais bu nekkee tout est politique parce que li li li waral mbir mi yëpp tout est politique fii dañuy dañuy dañuy xëy di politique ba ngoon dañuy politique boo politiquer li nga xam ne waruñ ko politiquer mooy li nga xam dañ ko war a gérer objectivement réew mi euh, politique euh, pour élection la rek pour distribuer les rôles parce que ci démocratie lañ nekk mais bu ñu xesee jot réew mi nag dañoo comme comme ñoom ni ñu ko doon waxee la patrie avant le parti. c'est extrêmement ah déedéet <laughs> loolu koy amu fi mosu fi am. en que discours slogan la ils sont très forts en slogan mais c'est un slogan extrêmement important boo xam ne dañ ko war a gis dafa war am consistance pratique parce que réew mi nag moom ñun ñëpp moom moo ñu kii moo ñu tënk ci parti ngay jaar pour pour jot ci pour jot ci réew mi mais boo jotee réew mi réew mi ngay doxal parce que loolu nga doon loolu nga doon campagne léegi euh, docteur Abdou Aziz euh, Mbodj xam nga euh, suba la ñuy feete suñu fête de l'indépendance mu nekk juróom benn fukk ak benn yoon boo xam ne ñoo ngi koy màggal mais est-ce que réellement Sénégal am na indépendance ci yenn ci ay bànqaas moo xam suñu wàllu économie la wala suñu wàllum éducation la wala suñu wàllum euh, wér-gu-yaram la wala ñun li nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo maanaam li ñuy dundee euh, ci ci suñu dund est-ce que am nañ ci indépendance ba nga xamante ni tey Sénégal yenn yi dem na ba moom ci boppam euh, est-ce que réellement indépendance boobu am na. waaw non xam nga mënuñu wax ne ñun amuñu indépendance. loolu loolu léeg nga dégg ñu koy wax sax mais mënuñu wax ne ñun amuñu indépendance dañoo mënul suñu bopp nag ñàkk a mën sa bopp. loolu bokk ñàkk indépendance loolu cuune la ci ñuy yore réew mi. mais ñàkk na bokk na si ñàkk indépendance non indépendance parce que dara doxul suñu diggante maanaam amul benn puissance étrangère dañ la ne boo amee indépendance. maanaam ni ngay doxalee sa réew amul benn force extérieure boo xam ne moom mooy ñëw ne la nii nga koy doxalee. non non loolu mooy indépendance. maanaam bu ñu bu ñu bu ñu tabax suñu loi bu ñu def suñu politique sanitaire bu def suñu politique économique. muy def suñu politique agricole amul benn puissance étrangère boo xam ne dañu ñëw ne nii ngeen koy doxale loolu mooy indépendance. léegi nag léegi nag léegi nag ña ña ka mën sa ña ka mën sa bopp. mun na mun na mun na mun na résulté ci cuune ñi nga xam ne ñoom ñoo réew mi. Uh-huh. mun na mun na mun na mun na résulté ci maanaam ñàkk a maandu ci ñi xamante ne ñoom ñoo yor réew mi. Uh-huh. mun na nekk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo réew mi maana bañ a bëgg loolu sax réew mi. d'accord loolu yëpp loolu yëpp mun na ne en tout cas ñàkk mën suñu bopp. yaatu na ci réew mi ci mbiru économie n'est-ce mhm. parce que tey ab réew mu nga xamante ne mooy réewu Sénégal tey maanaam lépp lu ëpp ci lu ñuy dundee facture céréalière rek trois cent milliards chaque année ñu dem du facture céréalière ñu koy imp ñu koy importer bitim réew muy ñëw fii alors que ñu am suuf su toll nii am ay gone am ñoo xam ne mbéy rek mooy seen liggéey ci lañ yaru comme sama classe gi léegi bu ñu béyee trois mois rek suuf si fa lañ koy bay ngalaw li di ko jël alors que ndox rek nag ndox rek moom moo ñu tere ñun ñu exploité ko. d'accord mais docteur nest beneen bi mooy que tey ab réew mu nga xamante ne nii bu tabaski jotee ñu ubbi suñu réew ne waa Mali kaay leen doo leen fay tax ñëw leen jaay ñu xar waa Mauritanie ñëw leen jaay jaay ñu xar doo fay tax te ñun ñu am ñu mu am te ñoom mu nekk ay ay pays yoo xam ne c'est c'est presque semi désertique Mauritanie désert désert la Mali désert la sur la base de quoi Mali ak moo Mauritanie ñëw du ñu jaay xar. tabaski bu jotee gis nga nu mu di magal bu jotee da nga gis comme par exemple gis naa waa kër Cheikh Béthio di boo ay Mali di di wuti ay nag yooyu noonu lu lu lu lan mooy problème alors que lii c'est des opportunités tey nii boo jëleen trois cent cinquante milliards yooyu nga organiser des jeunes yu bari yoo xamante ne nii suma alal dans le domaine de l'élevage leen di dugal yow yaa leen ciy dugal wala ñoo xam ne am na ñoo ne ñu nga ca sax di xoy-xoy di góorgóorlu mais amuñ doole uh-huh. nga encadré leen jàppale leen bu ñu am justement ay élevage yu moderne ay berger yu baax yu am doole n'est-ce pas loolu da mun mun na am mu mu impacté sur auto maanaam du affaire bi cuune moom moo moo ci ëpp. d'accord ak ñàkk a maandu. d'accord léegi docteur ak ñàkk a euh, yërëm askan bi. waaw léegi euh, docteur euh, Abdou Aziz Diop man. dama jàpp Abdou Aziz Abdou Aziz mbooj Abdou Aziz Diop maa ko maa ko dàq sant maa ko dàq a jàng. <laughs> d'accord Abdou Aziz Mbodj man damaa jàpp ne. entre guillemets Sénégal dese na am indépendance ci lu bëree bëri ndax ñun suñu wàllum koom imaginal tey yenn euh, national étrangères yi tey ay FMI ay banque banque mondiale am na ñoo xam ne bu ñu lay jox sa bu ñu leen jox xaalis parfois mën nañ laa wax fi nga xamante ni fa nga ko di wax léeg-léeg dañu lay faral di saytu tey suñu wàllum éducation tey est-ce que gisoo ne am na ONG yoo xamante ni tey ñoo ngi siy dugal seen xaalis ba nga xam ne ñooñu tey parfois mën nañoo am benn regard ci suñu programme wala euh, wala dara ci wàllum wér yaram gi tamit soo xoolee ba vaccin yi rek wane na ko kana Sénégal mënalul boppam dara ci loolu est-ce que loolu bokk na ci entre indépendance boo xamante ni plus de soixante ans. mais mais fekk fekk si nga ma xam nga ba daanaka dañuy wax même chose yow ñëw nga ci man nga ne Sénégal mënalul boppam dara moom moo tax man damay bañ. maanaam ñu jox la sa liberté ngay gëstu ki la jox liberté naan ko non ma ma samay fa nga gunge ma ñun am nañu indépendance mais ñàkk a mën bi nag mu ngi fii amul souveraineté thérapeutique masque il a sénégal yi xarañ dañoo xarañ nag sénégal yi. débrouiller bu mu def ay masque tusi non mais am ah, non mais mais mais mais Ablaye dama ko mos a dégg. ci benn benn ndaje boo xamante ni euh, fu ma jëm FAO la. mu wax ka ne. Euh, réew yu mag yi nañu bàyyi ñëw di dimbale Afrique ba pare euh, di leen wax naan leen fii ngeen koy dugal ak faa ngeen koy dugal nit ki soo koy dimbale da koy jox moom mu xool la mu mane mu doxalal ko boppam. est-ce que loolu lu na léeg-léeg dañuy jox ay consignes. xam nga xam nga xam nga discours discours d'un chef d'État. man je préfère le je préfère la pratique politique d'un chef d'État. discours historique Abdoulaye wat boobu suivre naa ko déjà c'était est parce que dafa amoon problème ak ak Jacques Diouf loolu nit ñi xam nañ ko. loolu xam nga ko n'est-ce pas alors léegi moom chef d'état la bu nekkee organisation yi dañuy ñëw di ko jàppale ne ko def ko fii soit mooy leen man jëlu ma ko wala du ma ko def foofu man njiitu réew laa man njiitu réew laa man ma am as du man du discours man damay def li ma gëm balaa ma koy wax damay boo boo leen ñëwee may leen non du ma def loolu man lii laa gëm lii lay def lii moo baax pour sama réew man mun naa toog di yore discours boobu un chercheur mun na yor discours boobu mais un président la république non moom pratique politique am day mujjee nekk idéologie politique day ñëw def dara ñu ne moom kat ba mu ñëwee kii dafa défier en vérité alors donc les partenaires au développement FMI moom du financer day accompagner parce que moom moo yore ah, donc la lu ñu la coopération monétaire internationale banque mondiale ak yeneen institution ñoom ñooy financer mais kuñ fi jox def ay conditionnalité mais parce que yow yaa ko nangu parce que bu nekkee tey li sa askan di génnee Eh, déedéet déedéet réew mi nañ def ni ñuy liggéey buñ liggéeyee fii léegi pouvoir d'achat yokku maanaam ñun am na Sénégal fii ay opportunités yoo dañ ko war a développer nga xamante ni nii maanaam sénégalais yi ci wam dañ ci dund suuf si suñ suuf si mën nañu dundal ñu fi toog di uuti soble di uuti di uuti ay pompiteer te loolu dañ koy dundee tous les jours ñu toog fi suñu xoolal suñu système industriel suñu suñu suñu suñu secteur industriel day nërmelu rek day nërmelu fii ñun ñu fi yaroo ay Kaolack ñi yaroo Ziguinchor dañu doon gis Sonacos nam doon tourner léegi bu ñu demee ba bu ñu béyee suñu gerte bu Chinois yi ñëwul du jar loolu musiba la lan mooy lan mooy problème parce que usine dañoo daanu. nañ ko defaraat léegi euh, ci tënk euh, docteur Abdou Aziz Mbodj mooy ñun. Euh, ba ñu amee indépendance ak léegi toll si juróom benn fukki at ak juróom benn ah. te constat bi nga xamante ni tey def nañu ko ba léegi wàllum njàng meek njàngale mi am nañu si ay jafe-jafe Euh, ay universités yi doyul boo demoon université yi fi nekk enfin dafa fees dell euh, boo demoon ci àll bi am na yu bari yoo xamante ni amuñu amuñu ay école euh, loolu wàllum njàng mi la ay professeurs yi doy amuñu ko bëri na étudiants yoo xam ne kenn du leen orienté système bi ñu bari ñoo ngi koy ñaawlu beneen bi lu jëm ci tey ñun suñu wàllum wàllum wér-gu-yaram gi gis nga ne tey fii Sénégal boo fi est-ce que usine bi fi doon defar ay médicament yooyu sax am na ay jafe-jafe ñun. daf wàllum éducation wàllum wàllum santé li ñu si mënal suñu bopp euh, bëriwul euh, tey am nañu juróom benn fukkat ak benn comme ni mu la ko waxee tey par exemple boo ñëwoon ci wàllum koom tamit euh, wàllum koom noonu la fa demee nga ñëw ci wàllum agriculture noonu la fa demee amuñu ay centre transformation ay chambre froide yoo xam ne danañ ci mën a conserver ñiy bay mbayum dara mbayum noor sax amul ci soixante ko am indépendance lan mooy problème bi non nee na la yorin bi la yorin bi la ak ñàkk mun problème mu gouvernance la ak problème mu volonté politique. parce que tey ko xam xam ñetti président yi ba amuñu volonté politique. non mun nañ wax loolu. ku ne nag am na loo góorgóorlu ak foo yem mais ñëpp xam nañ ne maanaam courage politique bi nga ne pour franchir yenn kii ñoom amuñu ko. mais est ce que ma est ce na ci ko réew ma. déedéet ah nee naa la état bu saa nit maanaam sax mag boo demee ba 61 ans. Hmm. boo amee 61 ans da leer na yow loo defu doon sax dootoo ko def. xanaa say doom defal la ko. donc soixante et un ans ci ci ci ci ci màgg. donc da nga war a tollu age sage âge justement majeur nga xamante ni lépp lu nga xamante ni waroon nga ko fagu war na pare. Mhm. nga am fu dëkkuwaay bu baax am et donc réew mi fa la waroon tollu jamono ji ñu nekk jamono boo xamante ni dañu wax ne xëy na yëg nañ ci apogée yéen programme ay problème mu njàng stable problème mu problème mu industrie stable problème mu emploi justement mu am ay solution yu baax problème mu santé stable. n'est-ce pas le problème infrastructure mu am ay jéego yu am a am solo mais doxin bi dafa yéex. d'accord te li ko waral yëpp mooy que yorin maanaam rupture alternative véritable amu fi am nañu ay alternance nag. Mhm. mais boo xoolee alternance yi même chose la c'est les mêmes équipes. Mhm. ñi fi nekkoon mi presse doon gunge Senghor ñoom ñoo fi nekk di gunge Macky Sall ça veut dire que y a le changement véritable amul l' alternative bi nga ne moom la ñu xaar pour nga xamante ne nii maanaam état ni muy agiré moo xam nga xam nga xam nga xam nga état néo patrimonial mooy que ñi nga xam ne dañuy ñëw yore nguur dañuy def ba ñoom li ñu yor dañ koy mujj di jaawale ak seen i poche hmm. loolu yoon néo euh, euh, comme nu mu tati patrimonialisme da ngay mujj jaxase yow. est ce que loolu bokk na si liy encouragé ndaw ñi. ah déedéet encouragé ndaw si parce que gàllankoor la ci ndaw ñi te ni boo jëlee ko ba nga jël université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass 2015 lañ def pose première pierre ne ne def nañ ci budget Sénégal xaalis bi nga ne pour tabax ko la tey ba léegi nii ñu ngi ci abri provisoire dañ leen di abal dafa Fatick abri provisoire Kaolack abri provisoire Kaffrine abri provisoire loolu du dëgg du yoon université Amadou Mokhtar Mbow gis nga ko université yu bëri Sénégal yi bi am problème d' infrastructure te alors que Sénégal am na xaalis boo xamante ni mun na ko def loolu mooy li nga xamante ni moo tax mooy la volonté politique. maanaam réew mi dañ la ñorul wala lan. a ah, loolu la vol pour xam nga volonté volonté politique mooy que bëgg mu avancer dox bu bu bu buñ defee dara ci loi de finance loo xam ne nee def nañ ko ci loi de finance depuis 2015. ba léegi nii munuñ ko exécuter. loolu lu kenn xamul la loolu loolu loolu yoolu loolu loolu loolu manque-manque boo xamante ne ni donc ci doj ci ci doq njiitu réew mi rek lañ ko lañ ko mën a teg xam ne problème volonté politique la euh, mbokk yéen loolu moom moo dal mbiru santé loolu moom moo dal suma koom gi et cetera d' accord jërëjëf euh, mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu euh, ñetti waxtu jote jàpp ñeenti waxtu tey nag ñu dalal euh, docteur Abdoul Aziz Mbodj moom membre la ci parti républicain pour le progrès parti boobu nag mooy parti bi nga xamante ni moom bokk na ci membre fondateur yi ak ki nga xam ne mooy Déthié Fall bi nekkoon parti réew mi. ak yeneen i cadre ak yeneen i cadre waaw d' accord danañ si ñëw si loolu mais. dama bëgg seen parti bi sax la ñuy njëkk a waxtaanee. Hmm. ka élection yi. ndax xam naa ne boo muytulee dina jàmp si yéen pour ngeen organiser su dem si élection locale peut-être danañ waxtaan si loolu mais benn question rek pour ndaw ñi ñu doog a jàll euh, ci seen parti boobu ndax Sénégal réew la moo xam ne ni ñu koy waxee mooy ndaw ñi euh, ñoo fi ëpp sànq maa ngi lire ci presse bi sax ñu ne euh, ren Macky Sall dina débloquer lu toll ci cent cinquante milliards pour ndaw ñi mais sànq ñoo ngi doon wax ci li nga doon wax ne ñi fi nekkoon Senghor Abdou Diouf ba léegi gis nañ leen Euh, ñu nekk ci li nga xamante ni tey moom mooy euh, gestion réew mi mel ni ndaw ñi dañ si desee gis seen bopp li ma bëgg a wax foofu mooy soo demoon assemblée nationale tey doo fa gis ki koy jiite wala ki toog si mënoon euh, ki koy jiite wala ña fa nekk ñëpp di siège député yi ña sa ëpp ay paa lañ ak ay ay maire soo demoon tey au conseil des collectivités territoriales nga dem au conseil des collectivités territoriales nga dem conseil constitutionnel nga dem cour suprême banqaa si réew mi si fu bari boo fa demee doo fa fekk ñi nga xamante ni tey euh, ñoom ñooy ñoom ñooy jeunes yi ñoom ñooy xale yi est-ce que loolu tamit du tax xale yi ñàkk a seen bopp ci ni ñu doxee doxalee réew mi. mën na nekk parce que loolu aussi. Euh, signe la parce que boo ñëwee nga fekk ñi nga xam ne ñoom ñoo tënk réew mi ñekk ñoom ñëpp. alors donc ay màgget wax ma ay mag ay màgget. Mhm. donc loolu du encouragé jeune parce que même c' est des gens yoo xamante ne ñenn ñi sujet d' actualité dañ leen di dépasser. Mhm. les défis de l'heure duñ ko xam. donc loolu je pense que euh, même ci réew mi nag lañ bokk mën nañ nekk mën nañ nekk fu nekk tant que ñu ngi koy mën mais aussi bu retraite jotee moom dañ leen dañoo war a dem bàyyi ñi nga xam ne ñoo war a actif réew mi da ngay gis ñoo koo xam ne dafa retraité gis koo xam ne maanaam dafa jeex ñu maintenir ko foofu. Mhm. na fi. n'est-ce pas donc yooyu yu ñu war a yu ñu war war a dindi ci réew mi la euh, pour que institution yi boo nga boo ko joxee koo xamante ni moom moo gën parce que retraite aussi du caaxaan bu ko fixé c'est parce que au delà de la de la retraite yow dootoo amati énergie bi nga xam moom moo war pour li yi nga xamante ne ni gàlloo nga ko mun ko doxal comme comme ni mu waree loolu moom moo ko waral donc jeunesse bi naturellement mun nañ ñàkk a gis seen ci xeetu doxalin bu mel noonu ci ab réew nga xamante ni dañu def comme dañu manqué confiance aux jeunes discours bi sax dañ la naan yéen xale ngeen da ngay dem ba bugg a màgget Senghor 45 euh, nu mu tati 54 euh, ans yaakaar laa nekk président de la république ma Abdou Diouf 45 ans la nekk président de la 35 ans premier premier mi gis naa fi sax waa joo xamante ne nii maanaam am na 60 ans mais dañ ko gëm leen ne jeune la ba jeune la ba bu solee xaftaan sax day sol kap n'est-ce pas yooyu parce que loolu lañ ñuy lañ ñuy gëmloo ñun waa comme suñu classe gi ay xale ngeen alors que ñun mënoo dem nga lax 40 ans war mën a yore lu ne ñu naan la ñu naan ñu nay gëmloo ne jeune nga xaaral xaaral xaaral lu mais ñun même bu ñu mënee xaar suñu réew mënut a loolu moom mooy problème ñun ñun la jeunesse la ñun ñuy wax les jeunes même bu nekkee ñun mën nañ xaar mais suñu réew moom mënatul xaar. parce que ñi nga xam ne moom la nekk seen loxo. justement seen doxalin justement alors donc méngoowut ak li askan bi di xaar. d'accord docteur euh, Abdou Aziz Mbodj yow membre nga ci parti bi nga xam ne mooy euh, parti. Euh, républicain pour le progrès. yéen parti boobu noonu diisoo ak askan wi. Mhm. yow membre fondateur si ak ki nga xamante ne tey moom mooy Déthié Fall. Mhm. dimanche passé ngeen ko ngénte ndax mën nga dellu siwaat ci cëslaayu parti bi maanaam si ni ngeen ko taxawalee ni ngeen ko waxtaanee. waaw xam nga parti boobu dafa am en tout cas ñu fa daje yëpp ñu ci ëpp am na ñoo xam ne mosuñu def politique ñu nga fa. ah des cadres yoo xam ne am na aussi benn ñu bëri ñu nga xamante ñun ñoo bokkoon fañ nekkoon. n'est-ce pas non parti réew mi lañ nekkoon n'est-ce ñun ñu si ëpp. donc euh, euh, nga xam ne am na ay professeurs d'université am na ay am na yeneen cadres yu nekkoon dans d'autres secteurs ñun bi ñu ku ne nag am na loo xam ne xëy na moo nekkoon sa argument bi ngay bi ngay yéen. mais bu ñu bi ñu génnee en tout cas am na lu ñu boole rek ñu daje waxtaan ni daal ñun war nañ construire justement une un projet alternatif pour le Sénégal un projet alternatif pour le Sénégal boo xamante ne ni dina non seulement dina cristalliser les espoirs des Sénégalais xaar xaar bi nga xam ne Sénégalais ñu ngi koy xaar ci way politique yi ñun il faut il faut ñun ñu ñu créer plateforme da koy mën a taataan. nit ñu am ci moom yaakaar am ci moom kóolute nga xamante ni buñ ñu dénkee réew mi moom incha allahu rabi dina changé lii mooy li nga xamante ni ñun loolu lañ jàpp moo tax ñu téye ko aussi ñu bakkee ko diisoo ak askan bi boole si di devise nag nekk ensemble prospérité paix parce que jàmm ji nga ñu doon wax léegi balaa ñuy même bu nekkee ñu ngi yaakaar prospérité ndeg ay ay meññteef yu bëri yu feeñ ci réew mi il faut que ñu am jàmm mais pour ñu am jàmm il faut ko ñu diisoo il faut ñu diisoo mooy la ensemble donc bu ñu diisoo am jàmm donc je pense que ak réew mi mun nañ fii kii léegi nag fi ñu teg suñu tànk mooy refondation des institutions fi ñu teg suñu tànk mooy réinvention de notre économie fi ñu teg tànk réforme de nos service publics maanaam tabaxaat kuréel yi nga ne ñoo tënk réew mi bu ñu am ndëgërlaay bi nga xamante ni dinañ mën a wuyu ni leen askan bi kii mais aussi askan bi nañ leen mën a wóolu wóolu ñu am légitimité bu dëgër beneen bi mooy que suñu économie faw ñu tëggaat ko ba nga xamante ni maanaam suñu suuf sii moo ñuy bugg di dundal mais baa beneen suuf ba nga xamante ne ni ci biir réew mi maanaam emploi des jeunes dootu fi nekkati problème parce que secteur primaire dana dynamique lool boo dina méngoo li nga xam ne moom la cheikh cheikh al islam El Hadj Ibrahima Niass doon wax ne ndóol bu ci réew mi benn traite bi la benn boo dee béykat bi ci àll day béy 3 mois tëdd 9 mois daf loon te 1975 la la jógee ci réew mi dafa ne ñàkk gi ci àll bi maanaam benn traite bi la. mu am mu am kilifa gu mag ci réew mi tam doon ko expérimenté ñu ko doon tuddee Abdoulaye Mbacke borom borom dër bi. cheikh Abdoulaye Mbacke borom dër bi mooy ko da doon béy mbéyam noor def ko justement dans la banlieue de Touba booy booy approvisionné. ko Touba commencé woon autosuffisance justement en légumes ak yooyu noonu loolu lu ñu mën a mën a def la parce que li nga xamante ne nii yow bara bi nga xam ki nga xam ne valable na valide wër këng trois mois rek mu musumee ko ko dem dem liggéey bu bu bu fa jógee sax léeg-léeg day dem nooraani ci waalo ga. waaw d'accord léegi professeur loolu euh, docteur. beneen bi mooy que suñu service public mooy santé muy éducation comme yi nga ko waxee. da ngeen see si bind nañ ci. dañ ah, si dañu ah, dañ si ci si ah ba parti politique moo doo xëy rek génn di dimbala la loolu dañ ko bind dañ ko bind bu baax. avant ngeen di def dimanche passé. ah waaw. ak ah, waaw ah saa mais waaw mais discours bi nag euh, discours bi neex na mais jëfe ko est nekk na lu yomb. docteur jëfe ko est-ce xam nga jëf. jëf nag moom la ñuy xaar ci ci ci acteurs yi. évidemment ñun ñëpp ku nekk ci ñun nag dañ lay niit rek ak ki nga nekk. ku nekk ci ñun dañ lay niit rek ak ki nga nekk. ñu mën a su susciter espoir espoir ak yaakaar. ndax bu ñu jotee dinañ am courage def parce que dama foo defoon dëgg bi nag foo ne yow da ngay am courage. parce que am na ñoo xamante ne ni tey maanaam Sénégal agriculture am développé moderne bu ñu mën suñ boobu enrangé wut leen peut être mën na ci biti la ñu nekk wala ay force yu ne fii am na ñoo xam ne industrie Sénégal taxaw. ba ñu mën suñu bopp di di di transformer lépp mën arranger wu leen. Ah. loolu dafa laaj courage. waaw mais docteur euh, Abdou Aziz mais nag man euh, def def li nga xam ne moom la sénégalais yi bëgg. moom ma gënal fuuf justement di jaamu li waa France bëgg n'est-ce pas def lu baax li nga xam ne moom la Sénégal bëgg moom a gënal fuuf justement di di di raay waa FMI wala waa Amérique léegi léegi léegi euh, docteur dañ fay yàgg a gis ñu fi taxawal ay parti politique bu ñu fa taxawalee parti politique euh, dem euh, parti politique yoo xam ne sax du ñu mos a dem élection parti politique yoo xam ne ci réseaux sociaux yi amuñu siège parti politique yoo xamante ne tey ay altoppe la ñuy doon parti politique yoo xam bu ñu koy doog di créer danañ xumbal euh, def bës benn ay bës bu ñu fa jógee kenn dootu leen dégg baa du ngeen bokk ci parti politique yooyu. non ñaanuñu ko yàlla te yaakaar naa ne li ñu tax a jóg boo justement ah donc di di di samp parti bi mooy ko mu nekk parti bi ma ne parti de référence dama la ne fii ak fin d'année ñun ñooy parti bi nga xamante ne li li ma gëm mooy ko ñun ñun dinañ nekk parti bi nga xamante ni képp ku naan opposition danga ñu woo. fii ak fan yu néew tamit fii ak at yu néew incha allah am nañ yaakaar ne danañ bokk ci ñi nga xam ne dañuy doxal réew mi loolu ñun moom lañu ko parce que parti dimanche passé nga xam mais dafa judd dox dafa judd rek taxaw et taxawul gëlëm nag taxawul taxawu kii de taxaw gëlëm la taxaw di dox di jéego di dem nit ñi gis ñu di ñu woo partout di daw di ñëw ci ñun. Hmm. ñun déedéet parti yi bëri nañ ci réew mi di sax ñu ne xam ñun xam. ñun 300 parti waaw ñun ñoo xam ma lan limal nañu sax ñun ban rang lañ nekk. mais 300 partis boo évalué ñu Sénégal amul 50 partis yu viable amul 50 partis yoo ñu ngi dox. n'est-ce boo xoolee élection législative yi passé 14 ñoom ñoo rangoon. Mm-hmm. yaakaar yaakaar xam ne 17 partis 14 yi ñoom ñoo am député. Mm-hmm. yeneen ñëpp amuñ député. ça veut que mën nga wax ne Sénégal sax xanaa 17 partis moom moom moo fi nekk parce que ñoo ñoo demoon élection législative. je pense que loolu yu ñu yu ñu yu ñuy sóoraale la ñun nag fas nañ ko. dañuy mën nañ daje nag ay nit ñu waxtaan mu am lu ñu juboo def n'est-ce parce que yooyu ci ci ci ci la vie politique la bokk. Mm-hmm. mais ñun ñun ci PDE e la ñuy bokk incha allahu rabi. d'accord léegi euh, xam nga tey. yéen nee nga parti réew mi nga bokkoon euh, Déthié Fall li mu fa bokkoon am na ñeneen ñoo xamante ne amaana bokkuñu fa woon mm-hmm. léegi est-ce que du Déthié Fall mm-hmm. moom moo am lu ko naqari ci parti réew mi génn parti réew mi yéen dim ngeen génn topp Déthié Fall wala da a bokk ay gis-gis moo tax ngeen dem ànd ci ak moom wala da ngeen ànd ak moom rek ngir fajle ko mer. non il s'agit pas de saa ñun merewuñ kenn il faut que mu leer ñun merewuñ kenn liberté moom moo ñu dugaloon ci parti liberté moo ñu génnee merewuñ kenn. maanaam liberté toog ba si kanam lii de bi ngay toogee di dugg ci parti réew mi mu ne nit ñi di la woo naa la loo loo gis foofu loo gis ci Idrissa bi ma fa duggee amul ñu ma woo naan ma looy def foofu. ci fan ci parti réew mi. bi ma génnee yi tamit nag am na ñu may woo am na ñoo xamante dañ lay féliciter ay kilifa yu bëri sax ñi ma je n'ai jamais été autant soutenu en politique bi ma génnee ci parti réew mi soutien bi ma sentir man. maa ngi koy doog a sentir ci sama action sama activité politique bi ma génnee ci parti Rewmi mais aussi am na ñoo dañ may woo d'accorduñ ci pour ci génn bi. noonu la demee non ku nekk nee naa la ku nekk am na xëy na loo xam non man personnellement man personnellement peut-être bari na ay faisceau d'indice man entre bi sax man bokkoon naa ci ñu ko doon défendre dem naa ci plateau télé yu bëri def naa fii penco def naa toi même tu sais def naa def naa def naa xaw ma lan 2STV euh, émission du ne def naa ko justement alors donc doon défendre mais toog na déjà dans mon environnement immédiat alors sama communication ci boppam en tant que membre du parti Rewmi passé jalatut jàllatut fenn mu nekk un benn première remarque deuxièmement discours médiation man li nga xam ne moom ma accéléré ma mooy discours médiation bi nga xamante ne nii président Idrissa Seck def na ko bi nga xamante ne nii dëkk bi mu ngi tàkk man jàpp ne léegi ne waxoon naa la affaire jàmm léegi ma jàpp ne lii du médiation mais sotti essence la. man loolu laa gis loolu laa yëg ca laa ci guddi ga laa bind benn texte boo xamante ni dafay jël daanaka. méngoowul ak moom li mu lim lim moom fi mu jëm ma proposer solution pour jàmm am parce que loolu laa gëm parce que jamono joo jiixi jaaxa am na ci réew mi ba ku nekk yaa ngi aar say doom samay doom jamono bu ñuy génn di jàng dama leen di gunge bu ñu waree wàcc damay daw kii leen ma toog une semaine daanaka génn mu sama si kër ga xëy na bu ma bokkoon ci nguur gi sax ñu ne ma xam naa ñu boole ma ci ministère dañoo wax ji donc jamono jooju fitna bu rëy bi nga xamante ne ni man mouvement étudiant laa bokkoon marche bu nekk bar bokk naa ci maa ngi woon fii deux mille deux mille douze di dem ay manifestation m manifestation mais manifestation yu amee nii violence amee ni virulence dajee nii réew mi donc menacé nii à euh, sécurité réew mi mosuma ko gis. d'accord te nag kenn mosu gis manifestation yi ba militaires yi jógee ci seen caserne yi ñëw taxaw biir Dakar. d'accord mais yéen est-ce que seen parti bi euh, di parti euh, républicain pour le progrès. est-ce que bëri ngeen ñoo xamante ni tey euh, ñoo ngi woon ci yenn structure ci yeneen parti politique ñëw adhéré si seen parti. am na am na am na gis naa ci koo xamante ni cadre la woon ci parti bu mag mu ngi ci ñun ak ñoo xam ne mosuñu def politique les gens nous et nit ñaa ngi ñu woote partout assurément pour ñu bokk. Ziguinchor Kolda Nioro partout Kaolack. tey nii ñun fu ñu neex dem ci réew mi. d'accord mais est-ce que est-ce que structure structuration bi fan ngeen ci toll. non dañ ne ñun structuration provisoire lañ nekk. n'est-ce pas un un petit comité comme bi ñu wax COMEX mais fa ñu jëm mooy que dañ ne dañuy def suñu congrès décembre léegi massification la ñuy def justement installer suñu cellules installé suñu coordination et après dem congrès deux mille deux mille nu mu tati décembre. parce que aussi parti fii nii dañuy parti dañuy judd rek kenn du congrès duñu def dara mais ñun dañoo bugg a méngóog. charte parti politique bi nga xam ne mu ci réew mi. xam ne kenn du bum di bumi daal ci parti. déedéet non bu démocratique la am parti de parce que loolu aussi xam nga tey boo bëggee doxal démocratie ci réew mi nga créé kuréel boo xamante ni yow buur nga fa. mais boo faloo musiba la. d'accord mais dañu gis ay partis politiques yoo xam ne ci opposition bi kenn xamul dañuy opposé kenn xamul euh, opposé woo euh, sooy opposé nag il faut nga jege askan wi wan na yow da ngay opposé euh, di def ay proposition di def tamit li nga xamante ni soo waree critiquer critiquer état nga nga nga critiquer état est-ce que du ngeen du ngeen nekk parti politique boo xamante ni daal trouvé fi nekk si opposition bi ngeen nekk di ngeen wane seen bopp ba ñu xam ne yéen parti bu nekk ci opposition bi génn. Abdou Khadre xam nga ne ñun dañuy opposé wu yow dégg nga sama discours kay te lii mooy discours bu président Déthié keroog bi mu bi mu bi muy def déclaration bi fan city ñi suñu ñooñ ñi nga xam ñu ngi jaar ci plateau télé yi da nga leen di gis ñun ay opposant lañ mais évidemment opposant responsable bi yuy proposer alternative pour le peuple parce que ay républicain lañ d'abord mais aussi il faut que il faut que les choses bougent maanaam il faut ñu il faut mi mais aussi mais dañ koy sauver aussi ci changement li ñu loolu lañ gëm ay opposants lañ mais yoo xamante ne nii yu taxaw ak responsabilité ne réew mi lii doxul nii la war a demee loolu moom mooy ñun moom mooy suñu cer noonu lañ ko war a defee. d'accord loolu loolu moom. loolu moom yow boo ñu dégloo sax Abdou Khadre xam nga ne yow da posé question rek moo la jàpp. Ah. xam xam nga ne xam nga ne ñun ay opposants lañ. d' accord léegi euh, docteur Abdou Aziz est ce que yéen tey euh, bi ngeen juddoo yàggul parti boobu noonu euh, bu élection locale ak si woon tey ndax yéen jàpp ngeen ne di ngeen mën a dem ci élection locale yooyu. élection locale ñun pare nañ pour dem ci parce que bari na ci ñun ñu nga xamante ne dèjà xam nga ñun ay acteurs politiques lañ déjà man opposant la suñu maire par exemple man. fu no moom Benno Bokk Yaakaar la bokk APR la tey nii foofu bu ma taxawee wax sama ñi ma ñi ñi nga xam ne waa askan ba askan ba yëpp may leen bàyyi naa pour nekk candidat mais sama kër lañu may fekk mun nam sax ñu taal sama kër boo lànkee bañ a nekk candidat waaw parce que yaakaar bu rëy a rëy boo xam ne ñu ngi ko teg ci man noonu la amee nag ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi ci ñun loo xamante ni noonu la demee seen localité waaw mais tëjagu leen fenn nag docteur nag ah déedéet c'est pas c'est pas parce que tëjaguñ fenn c'est pas parce que yow xam nga tey boo ñu jàppee tey maanaam juddu bees bii def comme ñun existé wuñu woon daaw déedéet ñun ba man ba may nekk opposant maire <laughs> depuis 2014 la depuis la laa janoog maire suñu ma maire localité n'est-ce pas depuis 2014 lay critiquer conseil départemental bu Kaolack donc lu loolu c'est pas parce que doo ma tënk ci parti bu bees bi rek jàpp ne justement donc ñun amuñ vécu politique. Ah, dañoo am vécu politique. parce que tey tey nii boo demee tey man sama commune. commune tey tey la département Kaolack. PRP la PRP moo fa nekk PRP <laughs> parce que la fa nekkoon ànd man di liggéey ci parti bi ma nekkoon ñoom ñëpp. ñoom ñoo soppeeku ñëw ñëw ñëw. Euh, mais mais mais euh, mbokk ñu fàttali yéen ngi déglu réew mi seen émission pencum réew mi ñoo ngi invité docteur Abdou Aziz Mbodj mu bokk ci euh, parti bi nga xam ne mooy parti républi républicain pour le progrès mais yéen. Euh, est-ce que du seen ki nga xam ne mooy leader bi mooy jiite parti jamono ji di Déthié Fall est-ce que du remaniement bi ñu def sa Seck dem fekki Macky sàll bañ leen di woowee coalition Mburoog Sow te ñu jël Euh, ba def ko ministre ñu Déthié ministre est-ce que du loolu moom moo ko moo di frustration bi. xam nga tey am tey nii euh, am na ñoo xamante ne bu ko nii def maanaam day ay jaxase la ak ak ak yàq am na ñu koy wax mais loolu mënul nekk xam nga tey honorable député Déthié Fall bu bu bu bu jëloon discours bu bu nooy bu nga xamante ne xëy na moom lañ jàpp ne moom la war a def. mais bu toogee assemblée nationale assemblée nationale dañ koy renouveler assemblée nationale mun na mun na koy privilège kese assemblée nationale koy renouveler tous les ans mun na am vice président mun na am vice président mun na fa am nekk président commission président commission da ngay am traitement bu bu bu ministre dañ lay jox essence yu bëri sa salaire peut-être day doublé et cetera et cetera nga am yeneen i oto bu nekkee privilège rek moom xamoon na nan lay def bu am privilège bu toogoon xëy na mun na ñu jox ko direction boo xamante am na direction yoo xam ne ñoo ëpp ñoo ëpp ñoo ëpp kii déedéet mais moom li mu def ci ay principe la ko teg du affaire du affaire du affaire calcul mooy que principe mooy que c'est un mandataire du peuple te Sénégal fi suñ constitution dafa ne le mandat impératif est prohibé maanaam député bi nga envoyé assemblée nationale doo ko bindal lettre ne ko lii fii ngay fii ngay teg sa tànk loolu suñ constitution moom moo ko wax moom benn xeltukat bu mag bu nekkoon justement donc euh, Europe naan li ko ñu wax concorde mu naan mandataire du peuple il m'a envoyé pour exposer mes idées et non les siennes mon premier indépendant envers lui mon premier devoir envers lui c'est l'indépendance absolue de mes idées donc bu buñ la envoyé assemblée nationale c'est da nga war indépendant di wax yow li nga xalaat ci liñ la présenté parce que liñ la présenté jox la ko bu ñu projet mënoo delluwaat ci ñu la fa ne leen loo leen xalaat donc c'est moo tax sa sa say idée dañoo war a indépendante te loolu man yaakaar naa ne fa la tegoon moo mooy moo tax bañ ma ci interroger parce que gisumoon discours bi dara lu lu mooy mbiru mbir am na ci réew mi maanaam xale yi jeunes yu bëri ñu ngi ñu ngi sóobu ci réew mi ne dañuy dem Barça wala ñu bar wala ñu dee Barça wala Barsaq lu mooy slogan bi c'est extrêmement puissant ñu bëri dee ci. dégg naa sax benn ministre ne euh, compte ay dee ay ñu dee indiwuma fi c'est extrêmement grave pour un ministre de la République. d'accord nest pas beneen bi mooy que mu dem ministre de l'agriculture ñëw à l'Assemblée nationale mu ne ko solution bii nii am mu emploi bii. li ci ëpp ci sa loxo la nekk waaye pour cela il faut que la vision de Macky Sall jóge jam ñaajo nag dem ci vallée du fleuve Sénégal. te Idi moo wax jam ñaajo la yam. il faut que vision bi jógee jam ñaajo dem Anambé xam nga tey aussi bu ñu buggee effacer ci mémoire yi maanaam discours président Idrissa sa yi critique u président Idrissa Seck day jafe. loolu man même bu ma ko bañee wax. ne Idi dafa président Idi dafa waxoon leneen. maanaam vaar yaa ngi fi dañu may ñëw fekk fii rek bombardé ma. d' euh, léegi élection élection locale yi dàq nañ ko. Hmm. Euh, ba gën gaa sori ci euh, février deux mille deux mille vingt janvier deux mille vingt deux lan moo ci saxalaat ci dàq googu ndax bëri na ci opposition bi ñoo xamante ni ñoom ànduñu ci. non dañ ko warul dàq. premièrement. waruñu woon koo dàq. non waruñ koo dàq. beneen bi mooy que prolongation mandat élus locaux dafay violer constitution loolu. loi boobu baaxul méngawul ak article wu constitution méngawul ak code général des collectivités territoriales code général des collectivités territoriales dafa ne bu nekkee dañoo dem ba mandat bi jeex mënuñ def élection dañuy def délégation spéciale lii moom méngoog yoon donc loi bi bi assemblée nationale assemblée moom mooy jël di selfaane suñu charte réew loi bi baaxul loi bi mu méngawul ak suñu charte réew loi boo xamante ni def lu la neex la maanaam du ay question parce que opposition loolu la loi wax loi dafa ne mandat bu jeexee mun na am duñ mën a def élection ndek ay raison yeneen raison même raison yi tax ñu war a def Madiane def élection amul parce que élection yi dañ pro dañ ko saboté ci ci audit fichier électoral ci évaluation processus électoral dañ ko retardé lool parce que bëgguñ ko dem parce que jamono ji maanaam opinion bi favorable au pouvoir xam nga nag kañ la leen di favorable xam nga boo defee 9 ans nga laj léegi nag boo jàppee yàpp askan bi jàpp ne ñii ñu ñuy jënd la moom moo tax ngay reporter élection jàpp ne mun nga leen ut loo leen jëndee loolu yàpp askan bi la maanaam lajj seen politique yëpp a lajj liñ fi digge yëpp dara amu ci donc ñooñu boo jàppee nag mun nga xool ba période buy gën a baax pour nga pour nga pour nga toogaat loolu yaakaar naa ne moom doucement loolu mun nekk donc loolu moom mooy premièrement bi moom moo tax ñi nga xamante ni d'accorduñ ci rapport bi suma di wax moo ñi nga xamante ni techniquement peut-être ngi ci dialogue bi xamoon nañ ne mënatuñ ko def parce que 28 mars même loi bi dañ ko yéex a adopté sax far parce que 28 plus tard 28 mars maanaam au moins def nañ 2 ou 3 démb loolu yëpp ay sooxe sooxe yoo xamante day am ci ñu jërëm gis nga gis nga ab réew maanaam warul am un temps mort temps mort boobu amul boo gisee ba suñu constitution sax bëgg dañoo bind bu président dee kii moo koy remplacer parce que réew mi nii am warul am temps mort avant le 28 waroon nañ adopté lu bi. loi bu nekkee ci ci kii même bu nekkee dama naan loi bi baaxul mais avant le 28 waroon nañ adopté loi bi mais toog nañ boo xaw ma le 2 lañ doog a adopté bi loolu c'est pas bon c'est-à-dire c'est marque d'incompétence la ñi nga xam ne ñoom ñoo initier loi bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon la procédure législative justement di ko mettre en œuvre d'accord léegi euh, docteur ñu jeexale kook euh, Déthié Fall ba tey moom euh, député la ba léegi nii ndax yéen xalaat ngeen a Euh, joxe mandat bi wala assemblée nationale di nangu ko si yéen comme yéen jóge ngeen ci parti réew mi naam ci coalition ngeen nekkee député. joxe moom mbiru borom la ki mu ki ko moom moo ko mën a joxe. assemblée nationale mënul nangu mandat bi. no parce que wax nga ko léegi yow yaa indi nga tontu bi <laughs> yow yow sa bopp xam nga ay journal ngeen yéen ñu jiitu yu bari dangeen koy da ngeen koy kii donc ne nga ci coalition la lañ ko investir. maanaam article soixante bu constitution dafa wax ne député bu nga xam ne dafa démissionné ci partem dañ ko dañ ko dañ dafay perte mandat député uh-huh. waaw xëy na mënoon nañu wax ne ga démissionné wul sax far parce que démission de fait lañ ko bu est dàquñ ko dàq fee <laughs> est-ce que ko loolu yëpp mën na nekk beneen bi mooy que ci coalition lañ ko investir la preuve mooy que tey député poste député boobu bu ko bàyyee mënu ko delloo waa parti réew mi parce que ci coalition bi ki ko topp ki topp ci moom war ko remplacer comme ni Malick Gueye bu grand parti remplacer Khalifa Sall kooku koo xamante ni ci xalifa si xalifis lañ leen di wax fa la bokk est-ce que sax mu ngi fa ba léegi parce que aussi fii si acteur bi dañu xaw ma xaw ma parce que xaw ma ko mais ndax xam naa ne daal xalifis la est-ce que mu ngi nekk xalifis tey boo demee 2002 biñ xam nga 2001 lañ indi disposition bi ci constitution bi contexte bi nag maanaam constitutionnalistes yi ñu ko bëri bo procès Ismaïla Madior rek ñoo ñëpp bind nañ ci li ñu wone mooy que Abdoulaye dafa dafa transhumant da ko traumatisé woon da doon dem élection législative mu am mu am parlementaire balaa législature bi di jeex groupe bi yëpp rocceeku ñu xëcc leen yóbbu ñu ñu transhumé loolu dafa bokkoon da ko trop ba bi mu demee bi ñëwee bi proposé constitution bees bi ñu adopté le 7 janvier par référendum muy constitution 22 janvier 2001 ci lañ jugal disposition même disposition bi nag méngawul sax encore ak prohibition du mandat impératif mais loolu moom moo taxoon mu dugal ko pour que trans nit dootul jógee ci minorité parlementaire justement daw dem ci nguur. d'accord beneen bi mooy que tey boo jëlee dans la pratique en 2002 lañ njëkk a pratiquer disposition boobu moom mooy bi Mbaye Sakh Diop dissoudre ci partem PPC ci biir PDS bi mu ko dissoudre fekk ci coalition la nekkoon écologiste yi. dañoo demandé dañoo bind assemblée nationale pour ñu déchoir ko pour ñu jox leen poste bi assemblée nationale ne leen partem falu ko coalition moo ko fal comprendre nga ñu def juge constitutionnel juge bi déclaré incompétent loolu moom mooy affaire jurisprudence boobu moom mooy affaire u Déthié Fall. d'accord léegi euh, docteur waxtu wi jeex na lan ngay tàggoo si 30 secondes. waaw jërëjëf en tout cas am na solo question yi tamit baax na lool donc maa ngi lay euh, remercier bu baax di wax sénégalais yi ne buñ perte yaakaar. nañ garder espoir mais bu fekkee aussi qui se mobilise qui se détermine et ñu ubbi seen bët yi xam aussi fan lañ war a mën a wekk seen yaakaar. bay rek bañ bay rek ñu bañ leen a yab di leen di yabee ay tiset di leen di yabee ak ay 5000. wala même di leen yebee yenni projet yi parce que neuf ans nag koo dénk te mu amoon discours changement mu ñëw fase ba deful dara dara dara ci changement yaakaar naa ne mënut a góorgóorlu bu ci trois ans yi mu defi li nga xamante ne nii suma dina fee suñu bët jërëjëf merci docteur Abdou Aziz Mbodj moom nag euh, membre la bokk si ñuy taxawal nag euh, parti bi nga xam mooy parti républicain pour le progrès moom la ñu invité woon seen émission pencum réew mi Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci micro bi Mamadou Diaw ci wàllu machine bi seen émission pencum réew mi la jot 15 heures jàpp 16 heures jërë ngeen jëf jàmm jàmm.